ci Rewmi FM Rewmi gan gi gan gi euh, di Fatoumata Niang Ba jiite UDSR euh, ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay Fatou. sa parti bi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey tàmbali ak investiture yi nga xam ni président Macky Sall def na ko euh, ñeel local yi ñu dëkkmal yow ban gis-gis nga am ci yooyu liste. si invitation bi ma invité di nuyu tamit auditeur ak auditrices yi nga xam ne ñoo ñu déglu man jàpp naa ne actuellement euh, waxtu di xool wala lañ bët di euh, président tey choix yu mu def maa ñu weesu nañ ko parce que lii am am na ba pare dafa fekk nag dañu jëm si ay élections yi nga xam ne bii fa dafa am euh, yeneen taxawaay te élection bi ñu jëm suffrage direct la maanaam population bi askan bi mooy fal directement maire bi te ñoom seen bopp jox nañ leen choix ak opportunité bi mën a tànn jigéen wala góor bu ñuy jël pour mu mën leen a yoral seeni commune fii ak juróomi at yi di ñëw tey coalition bi ma bokk muy benn Bokk Yaakaar dañu war a gañee lépp luy commune biir Sénégal si loolu laa jàpp te pour gañee ko nag dafa fekk dañu war a booloo nekk benn say pour depuis douze ba léegi maanaam unité bi ñu nekkee ak victoire bi ñuy am depuis 2012 ba léegi mu mën a gën a dëggu le président Macky Sall nag moom mooy président wu benn Benno Bokk Yaakaar ma jàpp ni moom ah am na responsabilité am na tamit yoon pour mun ñu proposer ak ñi muy liggéeyal maanaam la conférence des leaders wala son cabinet politique ay defar ñu ay choix pour tànn ñenn ñi nga xam ne ñoom la yaakaar ni ah doy na leen pour ñu jiite liste yooyu donc man en tant que euh, chef de parti militant discipliné de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm. choix yooyu vraiment dama koy rafetlu te aw ma ci lenn li nga xam ne maa ngi ko siy est-ce que sa parti gis na ci boppam. waaw xam nga tànn dafa métti. Hmm. te tànn moom euh, su amee nag euh, ñenn ñi ci am maanaam tuuti naqar yu ndaw wala ñii dinañ ci gis seen bopp wala ñii dinañ jàpp ñi dañ leen a fàtte mais loolu amul importance parce que suñu tànn rek comme ni ma ko waxee rek du kii moo gën moo tax ñu tànn kii déedéet dafa fekk su demee ba tànn am rek il faut ñu sàkk il faut il ñu sànk ñenn ñi parce que tamit nag mënuñu tànn loolu ñëpp donc man Fatoumata Niang nga xam ne maa jiitee le parti Union pour le développement du Sénégal renouveau li ëpp solo dama koy wax mooy ñu def benn say booloo nekk benn pour l' intérêt général intérêt général bi warul moo war a moo war a ëpp doole man sama intérêt personnel. Hmm. donc ñu toogee waxtaan ak waa parti bi. ak tamit ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo sant tamit parti bi dañoo accepter le choix leader nañu vraiment son son choix dañuy ànd benn say gunge la coalition Benno Bokk Yaakaar gin ko dooleel kon ni ñuy am habitude pour local yi di ñëw incha allah sa grand fi ñu ñu ñu ko ak fépp fi nga xam ne fa la ñu nekk tamit di fa di fa yëngu si politique mm. waaw ku xam na ni wala yàgg nañ laa dégg ngay wax sa euh, yéene euh, ci jiite Grand Yoff tey président tànn Cheikh baax naxum ndax amoo ci mbetteel. awma ci mbetteel parce que xam nga man moom euh, pour jiite Grand Yoff foog naa ne du lu ñuy laam-laamee wala lu ñuy waxtaanee ba pare xaatu ku dem ba créer parti politique c'est pour une conquête pour conquête du pouvoir la. Hmm. donc en tant que leader sama ambition bu njëkk mooy kay sama dëkk ma gañe ko mais nag ñëpp mënuñu gañeendoo ñëpp mënuñu demandoo ne dañuy dem jëli mairie bi xaawuñu tànn kenn. rawatina dañoo nekk ci coalition coalition de parti et de mouvement ñu bëri tamit ay parti bëri tamit ay candidats loolu yu fa nekkoon tey le président ñëw na tànn le directeur général euh, de la BIE ci biir ñi fa nekkoon ñëpp ñëpp a mérité jëloon euh, ñu tànnoon leen. Hmm. mais comme ni ma ko waxee tànn dafa métti te suñu tànnee dina am ñu foog ñi dañ leen a fàtte wala foog ñi dañ leen a bàyyi déedéet mais tamit nit su su jógee ba tànn. ñu ànd ñoom ñëpp waxtaan tànn kenn foog naa ni ñun mënuñu lu dul rek tamit nag euh, jël suñuy intérêt bopp teg ko fële te fekkee suñu gox dañ ko gëm lool mu soxal ñu lool foog naa ne dañoo war a ànd ci choix wu président pour mën a dem aux élections gagner ces élections yi jox ko pouvoir parce que ku xam mairie Grand xam ni euh, depuis des années ni ñi ci loxoy euh, Khalifa Sall ak ñooñam et que tamit il est temps que mu am changement changement boobu la pour mu am il faut que ñu ànd nekk boole suñuy force pour mën a nangu tamit choix président dem si élection yi gagné ko. waaw ki président tànn ci partem la bokk wax nga ni ñu bari euh, mérito woon nañu mu tànn leen est-ce que yëf yi nuruwul par parlo ndax amul tamit euh, rek xëy na euh, kersa gu ngeen ci am wante fekk tànnif gi neexul leen dégg nañu sax effectivement ay bruit foofu ñu ne am na ay alliés yoo xam ni dàq nañu tànneefu Cheikh Bakhoum jiite ADIE pour mu nekk candidat ca Grand Yoff yow mi sa joxo joxoñooñ nañ la baaxaamutuma si communiqué bi nga ni mhm. génne woon nañ ko. xam nga nee la tànn. Hmm. xam nga ñëpp suñu bëggandoo ñu jël kenn. Hmm. dafay métti tànn moo métti te tamit nag suñu tànnee man xëy na suma grandeur bi ma si am pour mën a ànd ak choix président xëy na keneen mën na ko ñàkk ba ñu am parce que tamit man mënuma nettali gént jàmbur. Hmm. def nañu euh, yenn parti si yenn bi ak waa APR dañu def benn communiqué. tudd ñenn ñi am na ñu foo ñu si bokkul am na ñu si bokk mais ba mu amee man moom si tàng tàng ba def naa sama démenti parce que bokk ma si loolu parce que man nekk naa nit bi nga xam ni man ragaluma lu may def ak ragaluma samay samay samay jëf yi ak ragaluma tamit samay samay kàddu lu ma bëgg wax dama koy wax parce que tamit nag kenn tënkuma te dara tënkuma donc tey le président Macky Sall le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar su ñëwee ba def choix am dans toutes les collectivités territoriales rawatina man fi may yëngu muy sama base politique choix boobu suma ma doyul woon damay génn wax ko mais choix boobu doy na ma doy nañu ma àndal parce que parti la ñu yor ñu ñuy waxtaan ba heure waxtaan jotee waxtaan nañu te tamit ànd nañu vraiment si choix wu président ak choix wu coalition bi. Mm-hmm. donc li ma koy waxee rek mooy vraiment euh, tey président dañuy ànd ak moom ak engagement ak loyauté te loolu moo tax tey. Euh, su ñëwee ñaan ñu dara dañ si ànd ak moom liggéey si bëgg si si bëgg-bëggam beneen bi mooy tamit si li ñu nekkee 2012 ba léegi mooy unité bi unité Benno Bokk Yaakaar mooy force Benno Bokk Yaakaar te tamit actuellement fu ñu toll mooy nekk benn say xeex autour de l'essentiel mooy maanaam jongante bi ñuy nar a jongante ak euh, sa Grand Yoff ak ñi nga xam ne tey ñooy euh, parti opposition bi te tamit pour loolu ñu am ko il faut que ñu booloo te booloo boobu man moo ma gën a amal njëriñ donc comme li nga wax naturellement dina am ñi nga xam ne tamit neexu leen mais tamit loolu c'est la politique politique ak loolu ñoo ànd. Hmm. mais damay wax suñu camarade rek nañu nekk benn ànd booloo parce que gis nga élection locale bi ñaari semaine rek la campagne ba benn jour la vote bi te tamit incha allah su paree ñu si ñëpp dañuy delluwaat seen i vaquer à leurs donc euh, nañu ànd nekk benn booloo autour de l'essentiel pour mën a am ndam. booloo boobu nag tey mooy Dakar ak si biir Grand <laughs> waaw booloo boobu tey mooy jafe-jafe ndax gis nañu frustration yu bari tàmbali fës ci biir coalition bi ñenn ñi moom wane ne carrément dañuy dem euh, ak ay liste parallèle est-ce que tiitaloo coalition bi justement ci ci xàjjaloo boobu tàmbalee feeñ. xam nga xàjjaloo boobu dañ ko yàgg euh, gis man naam du lu may rafetloo naam si du lu ma parce que suñu nekkee dans une coalition dañoo war a liggéey pour li nga xam ne mooy dëgëral coalition bi pas lu koy vraiment yankal parce que tey euh, soo gisee même au sein de l'opposition il y a des risques parallèles mmh. donc la politique rime avec l'ambition képp kuy politique rek da nga am ambition moo tax it mu nekk kujje bi que mu nekk pouvoir bi les listes parallèles bëri na mais man lu may wax mooy ñun si biir coalition Benno Bokk Yaakaar il n'est pas encore trop tard te tamit en politique rien n'est trop tard parce que à tout moment tout peut changer nañu gën a booloo uniru nekk benn nekk benn say vraiment dooleel la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que ndam bi su amee du ndamu ki ñu tabb de hmm. ndamu coalition bi la donc il est temps vraiment que ku si nekk tamit nag ñu jël suñuy ambition ak suñu égo mettre ko de côté dem vraiment si l' général l' intérêt collectif mooy renforcer la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñu wax ci fitna bi nga xam ni moo tàmbalee fës euh, ci euh, langue politique bi barki Demba cong amatina ca Ziguinchor diggante gaay Ousmane Sonko ak yu duduka bu APR euh, ndax yaakaaroon ni lii bu wéyee askan wi war nañoo tiit ci élection yi ñu dëkkmal. avant tout damay jaal. ñett euh, militant Pastef yi nga xam ni ñoo génn àddina démb vraiment di ko jaal Sénégal bi yëpp suñu duggee ci mbirum euh, fitna yi xam nga souvent nag dañuy wax naan politique élection ak fitna xëy na souvent ñoom dañuy dañ leen di méngaloo mais dafay doon li nga xam ne tamit en tant que leader chef de parti dama koy ñaawlu parce que nag dañoo war a dépasser tey politiku fitna politiku invective politiku xeex mën nañu def des élections ci dal ci yar te mu jàll te coow du am dara du am te man ci loolu laay woo nos leaders nos responsables nos militants pour véritablement ñu mën a dem ci élection yi nga xam ne apaisé parce que muy man di keneen ak keneen ak keneen soo waxee ak say ñoñ walla say nit foog naa ni ba waxtaan ak ñoom dee dara ñoom noonu rek doxalin boobu la ñu mën a am ci terrain bi. Hmm. donc vraiment il est temps ñu bannir ay xeex ay xuloo ci biir élection parce que nag après lépp Sénégal la ñu ni neen la comme ni ma ko waxee élection yi ñaari semaine la su jotee campagne ba benn fan la jour vote ba après ñun ñëpp ku ci nekk di nga delluwaat sa yitte donc nañu booloo rek tàppe xool yi nekk benn te éviter. yenn jëfin yi éviter yenn violence yi parce que violence nag moom dafa baaxul te violence mooy indi ay dérive si ñu réew. Hmm. donc man loolu rek laa mën a soññ ñi nga xam ne ñooy ay responsable di ay leader yi nga xam ne ñoom yaakaaroon ni tamit war nañ ci jël ay matukaay euh, lu mel ni di sanctionné ndax fu mel ni Ziguinchor wax nañu lu ne waaye teewul la amoon amaat na bu amee ñaari yoon ci benn bërëb diggante ay nit yoo xam ni dañuy faral di daje te ñu jëm ci élection est que fogoone war nañoo jéggi wax ji dem nag ci jël ay ay matukaay. mais xam nga ay ñaari kilifa yu daje tamit euh, wax am fa wala coow am fa foog naa ni gisuma fa sanction bu ñu mën a na ay kilifa. Hmm. que ça soit le leader du PASTEF que ça soit euh, Doudou Ka ay responsable lañu donc foog naa ni ñoom seen bopp euh, du ñoom ñooy dem naan dañuy xuloo seen bopp parce que ba léegi déggoo la ñu ne kii di Doudou Ka wala kii di Ousmane Sonko ñoo jot a déedéet. su sont des militants. Hmm. wala ñi nga xam ne ñoo les sympathisants wala ñi nga xam ne ñoo bëgg seen leader. accrochage na su amee kenn mënula wax ne kii moo tooñ wala kële moo lu ñuy def rek mooy les leaders nañuy waxtaan ak seeni waa base waxtaan ak ñoom conscientiser jeunes yi conscientiser femmes yi wax ak ñoom wax ji nga xam ne suñu dajee mën nañu dajee te dem te dara du am fii gis nañ fi élection 2012 ba muy am fii gis nañ fi le président Abdoulaye Wade le président Macky Sall daje dañoo nuyonte jàll kon kii nga xam ne mooy le patron de la coalition du le président Macky Sall moom si yar lañ ko xam si teggin lañ ko xam si teey lañ ko xam. Hmm. def na fi une élection apaisée bi nga xam ne dégguñu fi yenn yi tamit mi doon daje ki nga xam ne moo doon ëpp moo doon moo doon moo nekkoon au pouvoir te loolu yëpp foog naa ne ñun jàngat rek lañ si mën a jëlee di waxaat rek. ñun leader yi nañu gën a waxtaan ak suñu base yi suñu militants yi suñu sympathisants yi wax leen ne carrément élection du xeex du xuloo mais urne ya la mooy xuloo bi mooy xeex bi. Mm-hmm. ku si am koo bëgg voter duggal si urne ya nga voté fa. après mu jeex ku si nekk dem sa yoon parce que tamit nag Sénégal vraiment benn bopp la te kenn mënu ko xar ñaar te du tay lañ koy def. jërëjëf Fatoumata Niang Ba yow yaa jiite euh, parti bi du Union pour le développement du Sénégal Renouveau UDSR bokk ci benn Bokk Yaakaar amoon nañu mbégte dalal ci matinalu mi FM tey fàttali ni waxtaan wi mun nañu ko teewluwaat ci réew Rewmi officiel ak euh, Rewmi point com.